نحن أولاد التجان من أبوة المعاني نحن أولاد التجان من أبوة المعاني سيرين شيخنا نحن أولاد التجاني المعاني نحن mbokki Sénégal ak salaamaaleykum mbokki Xombol ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm fii ci Xombol tey muy fukki lu at ak benn bi sëriñ sëriñ sëriñ El Hadj Malick Sy Mansour euh, ci ndigalu wayjur ya ndigalu mag ña amoon benn bés boo xam ne nii da koy woote day dajale taaxiwa taaxiwoon yëpp yi nekk Sénégal ak àdduna leen dajale ci benn bërëb ci benn bés ci benn jamono tàmbalee ko Kayaar waaye ci ndigalu wayjuram sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin mu indi woon ko xombol ndigal loolu ne ko bàyyi ko xombol ndax sagale ko sa wéyjur sëñ Mansour si bàyyi ko xombol ndax sagale ko sa wéyjur soxna maam xaar Sarr yàlla yàlla yokk seen leer ba tey ñu nekk ci fukki at ak benn ci jamono ba mu amee léegi fukki at ak benn mu koy sagale xombol fukki at ak benn waa xombol di ko dalal fukki at ak benn waa xombol di ko yaatal ñoom it ñu koy gën yaatal kon tey ci kàddu monsieur le maire de la commune de Khombole ndax bi muy am ak léegi xëy na ñu ngi woon ci leneen waaye bés bi suñu bés la woon ñu koy taxawu ak ci ndigalu joxuñu suñu wéyjur wu góor muy El Hadj Babacar Boye ba tey jii yàlla dogal ñu doon meeru xombul moo tax taxaw boobu ñu ko doon taxawu tey la fa war a gën a yokk gën a yaatu gën a dëgër ndax sëriñ Mam Malick si sunu sëriñ la sunu wasila la sunu mag la waaye taalibe gi moo ëpp solo lépp loo mën a gis ñun maire lañu ñu naam waaye meer gi amul solo ci bés bu mel nii di ci ëpp solo mooy taalibe gi ñu dooñ di ci ëpp solo mooy bokk bi ñu bokk ci ci xadara bi di ci ëpp solo mooy joxoñ bi ñu joxoon ne Maam si ne leen topp ko ndax ñun moom lañ rek la topp ci lépp loo xam ne nii dafa jëm ci tarixa bi dafa jëm ci àdduna ak dafa jëm ci leneen bu ñu nee bàyyil ñu bàyyi bu ñu leen jàppale ñu jàmm ndokk nag lam naan jàpp leen lépp lu baax la jaamu leen yàlla sax leen ci njub am leen fulla am leen fayda wuti leen xam-xam doylu leen loolu la ñu maam Malick Sy di wax ci loolu la ñuy dox boobaak léegi moo tax bés bi bésu xombal la ñu ngi ciy sant nag waa xombool yëpp kenn ku ci nekk ubbi nga sa kër ubbi nga say néeg ubbi nga sa xol ubbi say bët ubbi say loxo ngir accueillir gan yi bés bi nag euh, démb la tàmbali ci xadara jumaa bu ñu fi organisé woon fii taalibi cheikh yi daje ci baatu laa ilaha illallah ci baatu allahu akbar ci ngoon gi ba ci guddi gi tey mu am ay panel yu bëri ci Serigne Mansour si ak ki nga xam ne ni mën nañ ko dippee atum ren jii ndax ba mu fi jógee léegi yàlla dogalul mu am muy Serigne Moustapha Sy Jamil yàlla na yàlla lokk leeram doo doon ku am njariñ ci tarixa bi ku am njariñ ci xadara bi ak it ku am njariñ ci xombal kon panel yooyu ñu fi doon organiser dañ koy poursuivre ndax boo demee ci bâche ba ne waxtaan yaa nga fa bu ñu paree délégation officielle bi mu ngi ñëw bi président de la république Macky yónnee ñu ñëw waxtaan saafonte gan yi bu ñu paree taggatu rasulullahi tagg ba guddi gi incha allah ñu wéyal waxtaan wi. affaire dafa ala daaw me sama bàyyi ko daan wax eh, léegi la Serigne Cheikh di woote faf woy juróom aksi donc dañu doon dalal rek Serigne bi monsieur le ministre waaw dëgg la ci tànk yi nga xam ni président yónni na ko mu ñëw fi te kenn duñu bulet ndax moom miin nañu xar kanamam ci programme bu am ci kilifa diine yi ci réew këru diine yi mu président di ko ci yebal mu di ci ànd ak ñam cee àndal di ñëw ba bërki démb rek ci sa télévision bi mhm. Italie moom la président yebaloon mu ànd ak ñoom Abdou Aziz Québec ak kilifa yi ñu àndaloon tey itam mu ñëw ci bés bi nga xam ni amuñu lu dul bés bi mhm. mu ñëw ci jëmmal ñu wéttali ñu ci mhm. turu président ànd ak gouverneur ak préfet ak directeur de société yi mu àndal ak kilifa yi ñu leen doon wàcce parce que duñ leen wax dañ leen di dalal pour àndaat ak ñoom yóbbu leen ca fa Serigne Cheikh nekk. Mhm. yàlla dogal bi ñuy demee bay wax loolu rek nga dugg si. ñu ni kon nag ñaan gi. Mhm. yow lañ koy bàyyil nga ñaanal leen avant premier bi boo demee nag ba ca tànt ba. Mhm. yow la nga leen di wax nag yaa leen koy wax foofa ca kanamu bokk ya fa nekk yëpp. waaw ndax li ñu ëmbal euh, euh, ki ko yónni. ci taxawaay ci cofeelam ci biir kër Seydi Hadj Malick. cofeelam ci kër. Euh, ci xalifa bi sëñ Babacar Mansour waaye cofeelam ci digganteem ak Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour euh, wax dëgg yàlla def na lu lu lu am am solo ñu koy sant te di la seedeel itam ni suñu maire bi monsieur le ministre ku taxaw Mame Malick la ku ko bés bi lu nekk daj na ko ci bu àndul ak Mame Malick dugg na otom di wër lépp lu ma fu Mame Malick war a dem dem na fa ñu la koy seddeel itam ci doomu dëkk bi muy ministre le ministre de l'intérieur di Antoine taxawaayam foo ko natt moom itam passé na ko parce que maam magam la xaritam la moom ak Abdou maam sëñ Abdou ñoo daan ànd mu nekk nit ku baax a baax donc ñu bokk dëkk bi bokk lépp kon ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay dalal ci turu suñu wayjur yi di ko bàyyi mu defal la ñaan ñu àndandoo nag dem ca tànt ba parce que dañuy waxoon ni dañuy fexe ba mu bañ a guddi ndax eh, kii yi nga xam ni moo am léegi ci autorité eh, ci à partir de minuit ak sax nit ñu bari ñi sécurité guddi gi lañ leen di dawal loolu moo tax léegi programme yu bari ci biir kër gi dañuy bëgg ñu di ko kii ba nga xam ni ñibbi bi du du du metti trop ci ñoom. Hmm. bismillah. Hmm? waaw kon ñu jàng. Fatiha xanaa gannaaw. Euh, dara laa amul. maa ngi wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin ashrafil mursalina hmm. wa alihi wa sahbi wa radiyallahu taala an jamii awliya an jamii awliyaihi wa ibadihi salihin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu bu baax uh, ànd ak Serigne Habib mi ma fi fekk ak Cheikh El Hadj Malick si uh, rakkam ibnu Cheikh Mouhamadul Mansour si borom daara ji ak ñun ñi nga xam ñun ñëpp njabootu borom daara ji lañu Cheikh Mouhamadul Mansour si ibnu Cheikh El Khalifa Abibakrin si ibnu Cheikh El Hadj Malick uh, Serigne sheikh mi ñu fi fekk même suñ ko gisugul tam gis nañ ko ndax yaa di Serigne Cheikh Cheikh El Hadj Malick mooy Serigne Cheikh xanaa euh, di ñaan yàlla seen jataay bi yàlla def ci barke comme ni mu leen accueillir ci turu nijaayam Cheikh Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour moom ak Cheikh El Hadj Malick Sy Mouhamadul Mansour moom Cheikh Mouhamadul Habib Mouhamadul Mansour ak Cheikh El Hadj Malick Sy Mouhamadul Mansour mi nga xam ni Euh, daje bi ci ndigal la ko mës teg yàgg na ko taxawee magam yu baax yi muy sëñ Cheikh Tidiane muy sëñ Habib ak sëñ Moustapha Jamil yal na ko yàlla yërëm ak soxna Asietu yal na ko yàlla yërëm ak soxna maam Xaar Sarr mu baax mi fi nekkoon yal na ko yàlla yërëm ak wayjur ba Cheikh Mouhamadul Mansour borom daara ji ibnu Cheikh al Khalifa Abubakar Si yal na ko yàlla yërëm kon euh, seen maam Cheikh El Hadj Abdoul dafa doon wax ku des dese seen maam Cheikh El Hadj wax ko responsabilité la pour nit ki fi desandi li mag ñi bàyyi ci legg ak héritage bu rafet buy indi lépp lu jëm ci wàllu mbaax ci diggante ña ko seq di ci fàttaliku mag ña ko sampoon devoir la ci ñuy dundandi su waxtu wa jotee ñu gën a pérenniser loolu gën ko jëme kanam parce que legg la bu ñu transmettre à à d'autres générations yoo xam ne sax xëy na juddooguñu te su seen waxtu jotee ba ñu ñëw ci àdduna dañ ko war a pérenniser mu gën a continuer ndax noonu la ko yàlla euh, santaane noonu la ko yonent bi saay sallam santaane ba tax na monsieur le ministre kon euh, yaa kilifa yu baax yi nga àndal monsieur le gouverneur monsieur le préfet fa tabarakallahu ak tous les chefs de services les sous-préfets tout d'abord les euh, après vous et tous les chefs de service ak directeurs yi régional départemental et national yooyu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi comme ni ko sëñ Habib waxee ci turu Serigne Cheikh ak turu Cheikh El Hadj Malick Sy Mouhamadul ak turu njaboot gi fi toog yëpp di njabootu xombal nga xam ni Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour si borom daara ji ibnu Cheikh El Khalifa liggéey na fi liggéey bu rëy ci ndigalu Cheikh Seydi Aboubacar si waaw bu rafet a rafet soxna maam xaar ànd ak àndoon caag moom ak soxna Fatou Sy Mansour mi seen wayjur di seen bàjjen waaw ak képp ku ci àndoon ak moom ñoom bi sëñ Mansour daan am ngant bu nu ñëw itam radiallahu anhu daan na yebal rakkam ju baax ja dafa daan wax naan moo sës ci man rëkk te du ma rëkk muy sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ibnu Cheikh al Khalifa yal na yàlla yokk leeram taas ci barkeem yàlla dogal noonu lañ ci àndee woon ak Serigne Cheikh ak Serigne Pape Malick ak Sidi Ahmed Seck Mouhamadul Habib ci seen keppaaru baay yi fi nekkoon yëpp sans exception bi yàlla dogalee ñuy laata dem wala sax bi ñu demee sëñ Babacar Sy Mansour ñëw na ay yoon moom tam nekk ci wetu doomam yu tedd yi jarbaatam yu tedd yi ànd ak ñoom ci legg bi mu bokk ak ñoom mënees naa magante kii jëkk a juddu rek waaye responsabilité bi benn la responsabilité partagée la bu ñu war a taxawee à chaque moment que kenn nekk fi ànd ceeg mbokk yëpp nii ñëpp Cheikh Al Hadji Malick la ñu ñu fi fekk ñëpp Cheikh Al Hadji Malick la ñu te Cheikh Al Hadji soo ko tuddee mën nga ni tudd nga mbokkam yi mbokk doon Sénégal démb ak bërki démb amuñu xàjj seen ci wàllu respect dévouement ak affection bu ñu war a am ci suñu kilifa yi nga xam ni tey dañ fi nekk ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bépp jullit ci lépp loo xam ni day indi jàmm ci biir réew mi yal na leen ko yàlla defal defal ñu ko waaw ni ko sëñ Babacar ni ko sëñ Cheikh ni ko sëñ Mouhamadul Habib waxee da ngeen ñëw wuutu fi monsieur le président de la république wuutu fi monsieur le premier ministre musu fi euh, monsieur le ministre de l' ak mbooleem gouvernement bi nga xam ni tey yéen a ngi ci biir di liggéey yàlla na leen yàlla defal jàmm defal ko njaboot gi ngeen fi fekk defal ko réew mi yëpp ak képp koo xam ni tey mbokk la te ñëpp réew mi yëpp benn bopp lañu ñu yàlla defal leen jàmm defal ñu ko. ñu nit nangul nañ leen yàlla boole nangu na ko bàyyi daan ñaane dafa daan wax yàlla nañu yàlla nangu te yàlla bu ñu yàlla nangul bàyyi daan wax ni fa man akramahu fa li fadli wa man ahaanahu fa li adli yàlla yu yàlla nangu ci li mu toll te bañ koo nangu faye ko benn ci ndigalal sunu kilifa sunu wëyju sunu mag sunu sëriñ sunu xalifa bàyyi sunu cheikh seydi mouhamadou mansour sëriñ cheikh nit ki mu wax ma ni ma naa ko wuutu wuutu sama rak sës ci man dëkk di sama cheikh di sama soppe deqi deqi gerte gannaaw tabax ca tool ya la sama bàyyi woo bu ma nee sa rek ma xam ni maam Malick la may wax mu ni ma sa waay booba ci mbaar laay fanaan mbaar ci mbaar amuma néeg amuma toilette te bëgg naa koo nax ba mu bañ xam ni ci mbaar laay fanaan awma toilette mu agsi ma génne mat la ci biti ñeenti weer ak nangam ñuy fanaan maa moom ci mat la bi ci suufu gerte tubaab bés bu nekk ma ne ko caabi néeg bi du ko yor dafa génn waaye léegi mu dellu si ay weer boobu bu ndékki jotee bu ñu war a ndékki battu xat la dagg pour yëngale ko su agsee ni ma ana kudd yi ma ne ko nañ eh kudd yi balaa ñëw day yàgg dañ dagg ci bant yi mu ni ma noo lay ak sobe bi ak kii bi nu mu tudd mu ni ma micro bi ni ma léegi jëkk la jël boo paree ma door la jël muy sama rak lu ko kenn sañu wax man rek maa ko doon sañu lu ko kenn ñemewul wax man rek man maa ko sëriñ Cheikh tey jii mooy suñu Cheikh Sidi Mouhamad Mansour mat ko sëkk billaahi magu fi rek ñu jiital sëriñ Cheikh dafay sunu bàyyi laata fi sunu bàyyi jóge di sunu kilifa laata fi sunu kilifa jóge mu jël lu uuf damay wax ni bu yoree dara nga soxla ko ma soxla ko ma Malick soxla ko wala suñu mag bu baax di Cheikh Mouhamadou Moustapha jëmi dama ni ku dégg ci moom yaa moom parce yépp la ko jël ndax bëggul kenn ku mer kon si Malick jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yàlla ni nga nekk sunu kanam yàlla yàlla wallaahi miineelu Serigne Mansour ku bu ko ba mu mat parce que lu muy man muy xaj muy ak sunu ak sunu tey suñu liggéey kenn ñooyu ci dara ndax yàlla ak yàlla na yàlla di yi nii taxawaay bu rafet bii wax naa ko ni ko bu dul woon ma ni ko parce yonent bi sallallahu alayhi wa boo déggee ñuy wax sunna mooy lépp loo xam ni yonent bi defoon na ko wala mu fekk ñu def ko ci kanamam mu bàyyi ku wéeru Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour am naa bés foo xam ni dañoo jóge xombal film bañ ko doon filmé lañ ko tegal ci biir néeg ba muy seetaan film bi keroog la validé yoonu xombal bii muy kon nag bu bés bu jotatee bu fi kenn wane ci gannaaw na ñëpp wër ko ci biir xombal am ko ndigalu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nga xam ne ni ñoo fi ñëwoon ñëpp tey ñenn ñi nekkoon fii depuis démb tey ñenn ñi fas yéene fee fanaan ba suba mu doon ziyaaru fukkeelu at ak benn bu sëriñ Maam Malick Sy Mansour ak daayira tàq yi mu doon yi mu uuf yëpp ak fédération yi doon organiser at mu jot fii ci xombol tàmbalee ko ci kayaar waaye ci joxoñ ak barkeelu wéy juróom sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin yàlla yàlla yokk leeram Maam Malick ñu ne ko danga koy téye fii ci xombol sagale ko sa wéyjur Seydi Mansour si Babacar sagale ko sa wéyjur wu jigéen soxna Mame Khar ci ndigal loolu mu wéy ci ñu seet at mu jot day gën a yaatu day gën a bëri day gën a neex day gën a baax loolu nag day wane ni barkeel ak euh, topp ndigalu kilifa boo ca doxee tànk ginnaaw du ko am tànk anam rek day am loolu lay firnde ñu sant nag population Xombol yëpp ñi nga xam ne nii ubbi nañ seen i kër ubbi seen i néeg ubbi seen i xol ak seeni i yoxo pour accueillir gan ñi jël seen poos togg seen i ñam jox leen nit ñi kontaan nañ waaye tamit euh, conseil municipal bu xombul kontaan na ci jëflante gi nga xam ne nii amoon na ci bés bi tey bés bi euh, sëñ di Mansour si radiallahu taala anhu yal na yàlla ku leemam daf doon wax naan xombol mooy wanagu tiwaawoon waaye tey xombol du wanag xombol mooy tiwaawoon tey tiwaawoon gépp tout la famille de Seydi Hadji Malick xadara bi yëpp dañoo déplacé wu tey ñëw xombol ànd koog waa xombol ànd koog fédération daayira taq yëpp li fi nekkoon ci mbooloo damay faral di wax ni bu weesoo rassemblement yi am tiwaawoon rassemblement religieux yi affilié yi bokk ci xadara Seydi Hadji Malick si amul benn bu ko gën a rëy kon dañ koy rafetlu mu doon barke pour xombal lu ñu indil la tegal ñu ko ci dëkk bi ñun nag ñu war ko mën a jariñoo waa xombal xam nañ ko bëgg nañ ko ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax kon daal amuñu leneen lu dul euh, mbégte ci bés bi ni mu demee fàttali rek ni joxoñu kilifa um, ku ko topp ca njalbeen nga ba ca mujj ga lu rafet rek nga cee am Seydi Hadji Malick Sy sunu sëriñ sunu wasi la loolu la def joxoñu kilifa yi la topp moo tax mu indi ko fii ci xombol kon xombol da cee bëgg xombal da cee gis boppam xombol da cee indi boppam pour que bés bi toll nii mu toll événement bu mel nii di xewe xombal ak ni mu toll naam gunge nañ ko état bi gunge nañ ko ci réussite bés bi ndax bés bi bu réussir les services déconcentrés de l' état ñoom ñëpp dañoo impliqué wu. bu njëkk CDD lañu am cette année ci sur recommandation du ministre de l' intérieur ñu am CRD service yëpp impliqué wu sur la conduite du du, du moo tax gis ngeen organisation bi ni mu demee courant coupé ndox am na connexion internet doy na sécurité bi mu ngi fa. dëkk bi set na service benn bu ci nekk yaa ngi ci doon impliqué wu donc jaadu na kon ñu gërëm leen waaye dafa am lu ci xombal di xaar lu ëpp loolu. du comparé ak yeneen dëkk yi de mais comparé ak événement yi de déedéet dañu jàpp ni rek li màggalu tuubaa di def ci dëkk bu sell boobu ba bu weesoo bés ba état di ko sóoraale di fa def ay infrastructure di ko gunge at ba at ma dellusi gàmmuk Tiwaawoon di ko def ci dëkk ba di Tiwaawoon dëkk bu sell ba kon événement bi war na état gën a gersuwaat xombol ci wàllu jumtukaay yu am solo yoo xam ne ni mu doon jumtukaay ñuy jëfandikoo ci bés ba kese ci wàllu wér yaram ci wàllu jàng ci wàllu yoon ak ci wàllu aménagement xombol daf cee gën a soxla boppam ñu gunge ko ci loolu pour que événement yii di ñëw xombol gën a mën a yaatu gis nañ euh, ki ñu ko dippee at mii muy sunu mag sunu sëriñ doon lamboo rek euh, opérateur économique te nit ñi umpale woon baatin bi ci moom muy sëriñ Moustapha si jamin yàlla yàlla yokk leeram te euh, yàlla teg loxo ci njabootam gi mu fi bàyyi yaatal tali xombol yi waaye ñun dañ koo soxla ndax ba mu koy def te ki ma ci doy seede mooy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour di taawu sëriñ Mansour fajar la ma sëriñ Moustapha Sy Jamil woo ne ma ñëwul ñu ndékki 2018 7 heures ñu ndékki ba pare mu ne sëriñ mus Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si la may def xombal tëli yooyu kii moo ko moom bu amee fit moo ko moom man du ma ànd ak ragal te bu ma ko defee moo ko war a àggale loolu la ma jëmee la kon ñun ñoo ko war a àggale malheureusement le budget de xombal ne peut pas le prendre en charge moo tax état wareef la ci moom mu gunge ñu ci événement bu mel nii. pour que xombol mëntee gën a gis boppam loolu lañ ne woon daal dañ ko yëkkati di leen sant di leen gërëm di seen teewaay tout la presse di sant euh, sunu xarit sunu doomu ndey di di cousin ci maam Malick di Mourad Sarr ak organe de pressam di sant waa Leeral avec notre ami Dame Dieng qui nous a accompagné et la presse et tous ñi ko fi xam ne yëpp indi nañ fi seen wërsëg seen doole seen alal. seen présence di leen sant bu baax ku ci lim juum waaye dañ koy tàmbalee ci président de la république ba ci chef de service yenn opérateur économique yi suñu xarit ñi nga xam ne dañu doon gunge ci ay produits lépp lu ñu fi naan ci ay produit participation financière ah suñu xarit euh, Ousmane ak suñu xarit euh, Moussa Camara ak yéen ñi nga xam ne jàpp di gërëm le conseil municipal c'est important euh, ren gis nañ implication bu baax mairie de Khombole ñun nekkuñu fi. mais ñi fi nekk suñu collaborateurs yi fi nekk di liggéey nekk nañ ci impliqué wu ci bu baax a baax a baax les président de commission mon mon chef de cabinet les agents municipaux le bureau municipal la première adjointe au maire la troisième le deuxième adjoint au maire particulièrement ñoom ñëpp mobiliser accompagner bés bi encadrer bés bi te xam ne bés bi bésu xombal la teraanga xombal la teraanga nag bu la ko indilee da nga koy teeg si juróom-ñaari loxo ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen